da nga ni da nga ni Seydi gisuma ko waaye dafa mel ni Serigne Sidi Ahmed laa gis man la Seydi Hadj Malick nga gis maamu kii Serigne Sidi Ahmed mooy taw Seydi Hadj Malick dafa jóge juma moom Cheikh Al Hadj Mansour Serigne Babacar Cheikh Al nekk ci kaw fasam woow mu daan war di ñibbi këram. mag ñi di buuxante ba képp alaaji Mansour deretam génn sëriñ Sidi mag bi mu ko gisee xam nga lu mu wax kan moo génne dereeti alaaji Malick ma dog ko ca tarixa bi kon alaaji Mansour dereeti alaaji moo génne dereeti alaaji ma dog ko ca tarixa bi Sidi Ahmed ko ëpp naa def amadu benn buy firnde ne surtout maanaam dereeti alaaji Malick beneen bi mooy fi ñu denc alaaji Mansour sama turandoo nee na képp kun fa denc suuf si dana la gixaat nga génn alaaji Mansour rek a fa mën a tëdd mooy wal jaddu Mahmoud alaaji Mansour rek moo fa mën a tëdd ku dul alaaji Mansour ku fa tëdd suuf si génne la xam nga lu tax mooy Seydi Hadji Malick suuf si ñu ko bindee la ca des alaaji Mansour lañ ci bind wér na wagi dem Sokone moo jógee Sokone fekk Seydi Hadji di dund alaaji Mansour toog ci wetam felankulaay mu ne ko Mansour lay felankulaay ni mag mu gestu ko ne ko maa leen mag mu ne ko yow noo ñu mën a mage te sëñ Babacar Sam maguñu mu ne ko waa ndax suuf sin bind Seydi Hadji Malick mii li ci des man lañ ci bind yooyu Ahmed Dem soo ko nee na ma denc ko dama doon laaj aljawaab asu al wal jawaab téere boobu mu bind daka daan def fu Seydi Hadji Malick nekk da dem laaj ko Seydi Hadji Malick wax ko mu tontu tontu ko mu dellu nee na bis mu dégg ni Cheikh Al Hadji Mansour génn na àdduna mag ñëpp ne nañ jël alaaji Mansour xam nga alaaji Mansour lan moo yéeme woon moom mooy li sëriñ si di def daanu ko def bu daan tëju xalwa wala muy zikkar ci armeel la daan dem di zikkar yi fii gisuma bi sëriñ buy dem ci armeel di zikkar alaaji rek a ko daan def ca biir néew yi yaa ngi dégg bi ñu bëggee courant courant ni dañoo bëgg courant am Tiwaawan xëccal nañ sëñ Babacar ba pare dikk ne ko dañoo bëgg ñu xëccal la courant mu ne xëccal leen armeel ba pare yaa ngi dégg bi Cheikh Al génne àdduna El Hadj Mansour génn àdduna ñu ne El Hadj Mansour moo wax fexe ba armeel am courant nañ ko denc ci biir armeel yi sëñ Hadi Touré génn ci sama néegu baay ñëw ci biir jàkka ji ne ndax denc nañu Mansour ñu ne ko mënuñu koo denc ndax fii ñu koo bëgg a denc dafa am xeer mu ne mu ne bàyyi leen ma génne xeer bi am naa benn doomu baay alxaaji Hadj Makhtar Dieng jigéen. nee ma xeer bobu xeer bu xonku la biñu genné tojit ya dañ ko séddoo ne sama bay indil na ma ci kéro biñ koy indi ma ngi amé bëy mais biko sama bayi tégué sama loxo ci la bëy bu bën kéro biñu ñu dikkee pour denc Alaaji Mansour dañuy gas ba yam ci mag Seydi Hadj malik ñu ne mënuñu ko dugal ndax buñ duggalé Alaaji Mansour day tëdd ci mbagu Alaaji malik Serigne modou ci nee so mam Seydi Hadj ma da pousse Alaaji Mansour dugg loolu lañ doon moo gën asalaamaaleykum wa rahmatullah soxna sofiyatu ñang lii la ko la ko yàlla defal ah, baay ayu kon kon nag serigne bi neena waxtan li li ablay mi wax rek moo tax beneen bi mooy sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala an mo wax ni ya ngi deg benen bi moy serigne babu keur ci mo wax serigne dakar Jal Joob mu ne ko man de damay deg bat buy wax Mansour sayyidul qawm est rawdu alaaji maay dugulun fi ben gone guñ fi tej tëj sëñ Babacar ni dekk ba ci yag mu ne ko sëñ Dakaaru mu ne ko labbayk mu ne ko Mansuur ndimbalu yàlla la bu yàlla jox alaaji Malick Mansuuru waaw te loola hal baana badrun kasaa ubil baha nuuru am barqu saariyatu yaxsaahu day jooru am durri yamin taxallaahu jiinu gaaniyatun yucaatiruha miskun wa kaafooro bal ataana salilu xaaji zu karamin mansuuru min indillahi mansuur loolu Ousmane Bala Fodé waxoon kon nag kii alaaji Malick la waaw alaaji Malick la alaaji Malick la yow gisoo alaaji Malick waaye beneen bi sëriñ bi wax na benn baat sëñ Ablaye Sow nee na képp ku tagg yonent bi ren ba déwén yëgoot sa bopp avancement bàyyil te xam ne yonent bi jàpp la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa ku koy tagg war ngaa yëg sa bopp ne yaa ngi fa matxuhu ibada wa xubbuhu saada wa zikruhu ziyada yaa fawza indi zakiri axlaaquhu mutahara ashaabuhu qul barara siiratuhu munawara waaw kon nag yonent bi ku am loolu lépp ci moom te yëgoo ci gisoo sa bopp kon yow yàppal ne da ngay wax la ngay wax bari lol way taggo yonent bi yonent tag mu fay la waaw kaabun wa hasanul wal busayr qad barau wa kulluhum si ma wa kulluhum wa sëñ maa ngi jégalu si wa kon tabarakallah dama don dëggal li ablay wax rek si malik ndax xam nga lutax tax ma koy dëggal nit boy ànd ak mom xam nga limu don nit boy ànd ak mom xam nga limu don kii du doo sëtu Seydi Hadj Malick rek rek rek rek wallahi moom laa bëgg wax nii xam nga nit booy ànd ak moom dangay xam ki ngay àndal kan la yaa gis nekk sëtu El Hadj Malick neex na lool waaye nekk li El Hadj Malick nekke woon moo daq waaw ndax sëñ Ablaye Sow bu na wax na ni Seydi Hadj Malick toog nañ ca njaar ne ma tëdd ci ginnaawam sëñ Ablaye Sow nee na kenn dàqu maa jàng alquran kenn gënu ma koo mokkal mu ne bi alaaj Malik ne kabar ci ëtt mam morgu mam morgu mam maguma amar neena commencé bakara ban uh, man commencé bakara neena na ba nisaay uh, déedéet ba maryam neena na maryam mariam ba naasi nee ci la yek ni deñu Seydi Hadji malik limi jang ci alquran deñu alaaj Malik bi mi ngi rir ni ci num rosi ndax ragal yalla kon koku jamu katu yalla serigne bi damay wax ni suma ande mom tukki damay am ci mom kersa xam nga lu tax ok xam nga nit boy ànd ak moom ko xam di nga xam ndax ci katu yalla la wala du jamu katu yalla waye bo ande mom da am kersa xam nga maamam sirah ajma dama wax ni kep ku juk katal heures biddanti nga Sidi Hadj ndax nit sëriñ bi laa dégg mu ni sëriñ bi laa dégg mu ni képp ku tëdd minuit wala nga tëdd onze heures bëggoo yeewu fajar moom mi laa ko dégg nee na képp ku bëgg a jege ju fajar war ngaa mën a xaaj guddi gi ñetti yoon ba am sulusul layli soo amee sulusul layli nag ca sulusul layli ba ngay jug trois heures du matin war na laa fekk nga jug salal préparé wu dawal say rakka naafila say naafila jàng alquran dawal say werd yooyu ca sulusul layli ba nga koy amee te moom mii laa gëm ni moom loola ma nga ndax bu ñu àndee génn bitim réew temps bi day changé day changé waaye ci nga yëg ni kii jaamukatu yàlla lii nag du jotaayam bi mu toog moo tax yal na yàlla guddal sa fan asalaamaaleykum wa a Abdoulaye jërëjëf Diop. Eh, maa ngi maa ngi ñaan nag bu kenn jóg ndax gàmb gi tàmbaleegul tàmbali Aziz Ndiaye ngi waaye sax dafa ko danoo bëgg nag maanaam dañuy bañ programme bi déborder. te dëgg yàlla loo gis dafa am yoon Aziz nañu bind ci carte yi mu war koo jàng waaye ni naan compréhension moom la dawal waaye dañuy ñaan compréhension bi mu dawal ñii fi toog ñëw ak jàngkat yi fi ne nañ ma dimbalee man ñu sarax ma ko ñu am compréhension boobu ñu déglu Aziz waaye Aziz moom it dama koy ñaan ci kaw compréhension boobu jàngkatu borom jumaa ji moom laa bëgg mu dugal Aziz ci kaw compréhension boobu xam nga li tax Aziz moo moom bërëb bi te kii gan la te dafa bàyyi ay yitteem ñëw te dafa war a dem te damaa bëgg Serigne Dame Seck nii moom it dafa war a dem maanaam te suba fu mu jëm dafa sori lool mais dafa bàyyi ay yitteem ngir ñëw teew fii sagal ma